des Tony. jërë ngeen jëf gën a rafet ba tey jii moo ci bi yotee sëñ bi kayit wii wan ko ni ko lañu ñu daan def dañ ko ndax sëñ Moustapha dafa wax ni liggéey bii fonk na ko fonkin woo xam ni luñ ciy def nañ ko yokk ci li gën a baax la ci daan def lépp yokk nañ ko mel na ne njabootu sëñ Modou Moustapha gépp teraanga ji na egg ci ñoom bu soobee yàlla te it dañu wax ni reggal benn jullit moo gën tabax junniy jumaa waaw kon bu ngeen seetloo bi ñu tàmbalee Isra na mu aram jiiru ne li Cheikh Moustapha def seet leen ba xam tey ñaata julli la ragal te benn jullit bu ne ragal ko moo gën tabax junni juma kon moom kat sasam wii muy bay mel na ne moo gën di sas yi moo ëpp ci sas moo gën a baax ci sas yi kon yal na ko yàlla fayal yéen yii ànd ak moom yal na seen xel dal lu tax moom day dañu wax ne nawet day nuru maam ji waaye bu Cheikh Mamadou Moustapha rawoon boo gisee ñu Moustapha Mohamed bay boo nga jàpp te xam ne yow de li nga jàpp moo sëñ Modou Moustapha bii fi nekkoon moom mooy maamam alhamdulilah kon li ma ciy bañ rek dañuy waxtaan ci moom tuuti waaye da ngeen dul mën a dal ànd ak sago tey sëñ bi dafa ne jëll yi ak coono bi loolu yi gënalu ko moo tax muy bëgg ci gàttal toujours wax ji waaye kon fi nekkal Cheikh Mouhamadou moo ma wax ma ñëw waxtaan ak yéen wax ma it li nga xam ne war naa leen koo wax li jiitu ci ay kàddoom mooy li ngi sant yàlla di sant Xaadimu Rasuul di sant Cheikh mi nga xam ni moom la fi nekkal tey toog ci buntu këram bi di ko xoolal njabootam gi sëñ Ahmadou nee na yéen mbooloo mii toog li nga xam ne moom lay jiital ci ay kàddoom ci yéen na ngeen booloo yéen ñëpp sant yàlla lu tax ngeen war a sant yàlla mooy lii ak jagle la waaye du ngóor a du waaye jagle ko nu yàlla defal la nu am ko amin woo xam ne bu nu ko xamee dañu ko mën a jëriñoo waaye am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën nanu am xam li nu am moo di sunu kilifa kii ci biir di sëriñ Ahmadou Mokhtar nekkal fi sëñ Modou Moustapha ñun ñëpp nañu waxaat ni yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko te day ko moo mbooleem njabootu gi nga xam ne ñoom la jiite ci njabootu sëriñ Modou Moustapha gépp nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm. salaamaaleykum. maa leen ak dégloo.